asalaamaaleykum chers internautes de Sénégo Kawtef euh, gis ngeen ñu ngi fii nga xam ne ne moom mooy Medina Baye si juma ji ñu dajee feex na ki nga xam ne ne c'est un fervent talibé de euh, Baye ñas ñu fekk ko fi si juma ji mu ñëwoon pour ziara ñëw effectuer li nga xam ne ne moom mooy gàmmu gi euh, wisi xana ñu ngi lay wisi kaana wala parce que man je maîtrise pas trop le truc wisi kaana la wala wisi kaana yaa wisi kaana donc wisi kaana ñu ngi lay nuyu bu baax di la laaj déjà gàmmu gi noo ko dundee waaw Amina maa ngi leen fay euh, di leen jaajëfal ci seen teewaay fii pour interview bi like mm, bon gàmmu gi nag nice quoi ñu ngi koy dund comme niñ ko daan dundee rek mhm. chaque année ak mbegte ñëw ziare suñu sëriñ gàmmu like gàmmul Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et puis voilà quoi bu ñu paree ñu soog a dem ñu noo koy tuddee lugu laal la. ah lii en tant que taalibe Baay daal war nañ solo nii daal waaw lugu pays bi la daal <laughs> waaw mooy loolu. Euh, gàmm gi biñ koy waajal bu mu desee ñaari fan wala ñetti fan génne nga li nga xam ne ne moom mooy benn clip tuddee ko ñasi di pour sante ko Baye Niass la wala. waaw bon déjà pour sante ko Baye Niass la parce que dafa def lu bëri ci suñu ci suñu life euh, changé na lu bëri ci suñu dund daf ñoo defar daf ñoo fekk ñu jël benn yoon euh, xëy na sax mënoon nañ nekk ci ay tànk dëng wala dara. mais mu jël ñu tegaat ñu ci yoon bu bu jub quoi ci yoonu siraatul mustaqim loolu daal dañ ko koy sante te yaakaar naa ni euh, chaque année daal bëgg nañ di def son pour bëggal bépp mboolem jullit sax laay wax du ma wax du ma wax taalibe Baay mais bépp mboolem jullit daal képp ko nga xamante ne tijaan nga képp ko nga xamante ne murit nga képp ko nga xam ne nga ñëpp daal waaw mooy loolu. tey euh, en tant que jeune nga nekk euh, musicien nekk rappeur mais tout le temps bu ñu xoolee ci say réseau. dañuy gis ni aussi da nga favoriser li nga xam ne moom mooy zikar bi moom ngay gën a dugal et tout ça donc loolu c'est da nga bëgg a fësal fi nga nekk wala. bon du question de bëgg fësal fi ma nekk sax mais je dirais que man damaa bëgg Baay man man taalibe Baay laa te damaa bëgg Baay te te nëbbatuwuma ci dara waaw te zikrullah yaakaar ne moo ñuy dundal ndax yàlla nga toog benn bës te te sax loolu yaakaar naa ne. caaxaan la quoi yaa moo tax moo tax daal ñun dañuy tudd yàlla fu ñu nekk ndax daf ñuy bégal daf ñuy dundal tamit en tant que taalibe Baye ku la gis xam ne da nga bëgg a Baye ndax danga koy fësal fépp ci say woy ak yeneen lan nga ñu mën a wax tey si Baye Niass waa lu ma leen mën a wax ci baay waa ci lu ma leen mën a wax ci Baye mooy que ni euh, Baye dafa nekk koo xamante ne moom toogul maanaam Baye sax danaan la tant que tant que weddi woom tant que weddi woo ma rek nekkoo sama taalibe euh, yaakaar naa ne daal comme li ma la doon expliquer sànq rek Baye daf ñu daf ñu daf ñu defar Baye daf ñu defar parce que da lay jël yow mi nga xamante ne xamoo dara xamoo sa bopp xamoo kan mooy yàlla mu jël la teg la ci yoonu siraatal mustaqim nga jël tarbiya mu mu mu ne la yaa ngi nii sa borom a ngi nii mu xamal la kan mooy yàlla parce que yàlla dafa ne aarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni kayfa taabuduuni xam leen ma balaa ngeen maa léegi bàyyi nag loolu la ñëw defal ñu xamal ñu yàlla pour ñu mën ko jaam moo tax daal ñun euh, ñu ñu ñu bëgg bàyyi daal waaw te suñu bëggeel gi day yàlla nay gën a law ba faw sax nag waaw. ñu dégg ni aussi que da nga teel a ñàkk sa waajur bu góor donc boo nekkee jeune teel a ñàkk sa waajur bu góor donc y a de très fortes chances que nga dévier des fois yow kan moo la wone la ak Baye Niass ba tey nga nekk jeune te dévier woo. Euh, man nag dama dama dama yàgg bëgg Baye. loolu depuis may nekk xale bu ndaw la te sama muqaddam sama ndijaay la sama sama magu yaay la moom moo ma tarbiya mais balaa maa tarbiya bu may gën a nekk xale bu ndaw daf ma doon waxtaanal ci baay di ma waxtaanal ci yàlla di ma waxtaanal ci yonent bi xam nga looloo looloo teel a def bëgg baay gi ci man ba bu ma euh, ba ma amee ay 14 ans euh, après ci la ci laa njëkkoon jël tarbiya mère bi doon ma tere. naa xam lii boo ko jëlee da ngay doof ay genre yooyu noonu. dégg nañ sax ni jël nga wirde aussi. Mhm. jël naa depuis 2014 su ma juumlee. waaw depuis ma jëloon tarbiya mais après maire bi li ma doon tere noonu moo tax ma bàyyi woon ko quoi. léegi en 2017 nag bu may demaat di tarbiya moom daf ma topp ma dem jël tarbiya moom tamit mu jël tarbiya ñu def deux semaines ma fannaaw moom tamit mu fannaaw après ci la toog ne ma su ma xamoon ne dëgg-dëgg ci lii nga doon dem kon du ma la tere. mu ne rëccu na moom li ma doon terewee pour ma dem tarbe waaw daal la demee ma moo tax man li ma ñàkk sama waajur bu góor euh, like je dirais que euh, affecté na tuuti sama life parce que nit bu dund sama papaam di gis ñeneen ñi di dund ak seen papa loolu dina ko xaw a dina a def dara ci moom tuuti mais tamit dañ koy sante yàlla rek parce que yàlla moom moo la moo moo fi indi doomu aadama bi tey bu ko soxlaa tamit da koy jël te mënoo ci dara kon daal mooy loolu daal di ko ñaanal tamit euh, que son âme repose et voilà quoi. nga xam ne sa décès papa aussi affecté na la parce que quand tu parles dañuy sentir li nga xam ne moom mooy tristesse bi nga xam ne moom nga am à l'intérieur da nga dem sax ba jagleel ko way tourner ko si li nga xam ne moom mooy ci benn cimetière. waaw euh, loolu nag xam nga man dama depuis mu may nekk xale nag dama bëggoon sama papa parce que dama ko jege trop yaa ngi du coup kon li mu décédé affecté na sama sama sama sama life quoi. ak li mu teelee dem maanaam jamono yi nga xamante ne ci laa doon commencé miin ay 2009 yooyu noonu euh, ci ci la ci la ci la génn àdduna tu vois. alors du coup en tant que musicien je me suis dit que sama premier projet su ma defee rek te te te wéyuma ci sama papa like day mel ni defuma dara. waaw day mel ni defuma dara looloo tax ma def son son bi nga xamante ne moo tudd Papa def ko mu nekk sama premier extrait bu projet. Euh, xam naa sax li ma la bëgg a laaj du waxu fii mais dañ koy brosser juste nga nekk artiste nekk mburuwaa ban relation nga am waa Akhlou Brick xamante ngeen jegante ngeen wala xamante wu leen. waaw bon Akhlou Brick euh, auparavant y avait pas grand grand grand truc quoi tu vois mës naa tase ak Arafat ci benn lieu de shooting fu ma doon defee shooting après ñu taxaw c'était bien quoi parce que mu ma doon encouragé si job bu may def di wax ne que ne like euh, gis na carrière bu bu bu nice ci sama kanam que ne mën naa avancer conseil grand frère rek tu mais jour bi ma génnewee sama son barxaama bi déjà ci la ma woo jour boobu la ñuy soog a déggante ci la ma woo téléphone na ma Wizzy man la déjà après mu ne ma kontaan naa trop ci son bi nga def ñaanal na ma yàlla genre affaire yooyu noonu te xam naa ni link bi dina gën a daw man tamit kontaan naa trop ci appel bi parce que tey boo gisee say grand frère yu ne yéen a bokk dëkk ñu ñu ñu ñuy yëngu ci yow li ngay yëngu te ñoo la ci jiitu après ñu woolo la di apprécier sa liggéey pour man loolu mbégte la quoi waaw mbégte la te di leen saluer de passage tamit quoi. voilà ñu gis bi effet yi génne aussi defoon nga benn eh, eh, affiche def ci li nga xam ne mooy effectivement ñu bëri yaakaaroon ni yow da nga ñëw dugg si classe bi jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy les artistes mbourois donc lu tax gisuñu vidéo boobu. bon man nag effectivement bi c'était juste un moyen de communication quoi du leen fen pour génne woon sama son barxaama bi laa waroon génne. du coup comme que ay effet effet la gars yi wax ma ne xaaral ma tamit ma tooñ quoi ma génnee effet bu ma ko génnee affaire bi jàll réseau yëpp dawal ko euh, mais nag je dirais que man a ah, man aw ma ngaaka sama xarit la waaw ngaaka sama xarit la dañuy waxtaan lu bëri sama grand frère la tamit daf may conseil lu bëri waax Akhlou Brick tamit samay xarit lañ samay mbokk taalibe lañ kon man du ma wax kii laa faral du ma wax kii laa faral waaw ñoom ñëpp samay grand frère lañ quoi du coup les pour pour pour la woon rek waaw genre moyen de communication la woon rek vite fait. ñu ngi lay remercier bu baax. di kontaan bu baax aussi ci moment yi ñuy accordé xanaa danga ñu koy jeexale rek ak Zikr. waaw Amina <laughs> maa leen gën a kontaan euh, di leen remercier tamit comme ni ma la ci seen teewaay voilà quoi Zikr. ba bàyyi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 la ilaha illallah la ilaha illallah ha illallah la Allah Allah Allah la ilaha illallah